Aly ñoo ngi lay mais ñu ngi lay fay bu baax di fay papa Ndiaye Rambo mais di ma nuyu sama mag ji di la di béggee ñëpp ah waaw. ah mais dañ fi joué sama patron ñun ñooy joué Ramdan ñooy joué fête de la musique xam nga fet de la musique moom lu toll ni fête de la musique bu amee da ngay xool musicien bi gën a rëy ci àdduna ki nga xam ne moom la fi yàlla teg mu mu mën a tëgg fête de la musique comme que fête de la musique nag moom moo tombe nii yàlla xam ni ci xolu doomu aadama yi. waale ne ci biir xolu doomu aadama bu fête de la musique jotee waale rek moo mën a ñëwal bégal xale. moom keneen koo fi indi de nit ñi dañuy tëdd barke Seydina Muhammad ko li ma koy tëggal de looy def ci jamono jii te waali tëggu ko nit ñi dañuy tëdd barke Alaaji Baara Mbàkke parce que loolu yàlla la li yàlla dogal ci doomu aadama ku ko nangu rek doo sonn. waaye boo boo bañee li yàlla dogal di nga sonn di nga jaaxle kenn du ko faj sa dara du leer. ma teg ci ni yéemu naa ci buur bi yàlla da lay dogal ma ne ku fi def lu baax baa nga jaar ci lii mu digal da lay teral waali nag def na lu baax jaar na ci li yàlla digal mi ngi faj nit ñi di dimbali nit ñi demal jëli ji beneen musicien fi indi ko fi nit ñi dañuy tëddi xoolal mbedd mi nit ñi tëddee lal seen i basang yóbbul caméra bi nga xool. man de li ma ci gën a jaaxal mooy suba xale yi jigéen yi war a ñëpp daal war a jàngi daal waale tax daal ñu teew fi man moom. loolu yàlla mooy li ma lax mooy mbiru yàlla suñu borom li yàlla dogal barke Alaaji Fallu mbake keneen koo fi woon nit ñi nit ñaa ngi jël ay taxi di wàcc di ñëw ci concert bi gis nga damay dégg ñu naan taal bi yàlla taal sànni samat a gën fay ci yow ci sànni sa mat yàlla taal taalam bi boo ci sànnil ma tam ban intérêt day tàkk jëpp ndax yàllaa ko taal Zamper taalu ko Koromata bari taalu ko ya Yakondo taalu ko Yatimbi taalu ko yàllaa taal taal bii bul ci sànni sax matt nga xool day tàkk yàlla nañu yàlla defal jàmm. Sam ñu ngi lay nuyu di la di la bégee loo gis tey ci organisation bi genre li ñu organisé ci fête de ñu invité fi Wally Seck ñu lay laaj yow loo ci gis daal lu ci sa xam-xam. Euh, balaa dara xew maa ngi fay nuyoo ñëpp fay monde bi yëpp te xam naa ni ñëpp moon na bi yëpp ngi leen di déglu àdduna mu ngi leen di déglu bokk ndax xam nga ne borom làmp yi tiim ma di wax di ma xool nii xam na ah xam nga ne àdduna ngi leen di déglu fête de la musique dafa am lu ma fàttali ko si ginnaaw parce que nii la daan demee tey indiwaat nañ fête de la musique démb parce que dafa doon am ay groupe yoo xam dañ daan nekk si ruq yi di répété mais fête de la musique lañ daan ni am ñoo xam ne nii dañuy jël seen euh, dañuy mën a dañuy maanaam dañuy gis li gars yi di liggéey mooy fet de la musique di dekkiwaat na indiwaat nañ bokk man man loolu laa gis quoi indi naa ko tey moom dama maa ngi koy enjoy daal maa ngi enjoy fet de la musique. gisee tey bés bi. waaw pour l'instant de moom mi ngi mi ngi mi ngi xëy neex parce que xam naa ni ponkal bi moom bu ñëwee rek lépp nekk dëgg c'est ça xam nga fête de la musique moom dañuy xool chaque at rek nu mu gën a jekkee quoi mais boo xoolee actuellement. Wally mooy Sénégal comme ni mu koy waxee comme ni muy waxee ni sur le centre du peuple. donc su fekkee dañuy def fête de la musique sans Wally mi ngi mel ni nga ni ceeb bi amul xorom. tey nag mooy le 21 juin fête de la musique ma ànd fekk sama xarit sama doom ndey Wally ko Seck le golden boy de la musique sénégalaise ki tax ma gën samay morom ki tax ma gën ñi ma war doon gën moo tax ma ñëw fii yaa ngi ko Wally Ballago Seck suma xarit sama doom ndey Serigne Soxna dara bàyyi Ndella bàyyi Momi bàyyi Mouhamed Ndiaye Salimata Gueye. xaritu Wally Seck doomu ndeyam di frère am waaw yow Rambo ñu ngi lay. ñu ngi lay siyaare soxna si di siyaare sa di siyaare seen site bi di leen ñaanal yàlla site bi dem ba doon ay télé suñu teewaay fii nag defe naa ne yomb na expliquer un man artiste la deux dama fi ñëw ànd ak sama frère muy Wally Seck looloo tax ñu looloo waral suñu teewaay. Poulain macha allah xam nga fu ñëpp di daje dafa jafe canaliser tuuti xam nga du ñàkk nag ay quelques failles mais na wax dëgg yàlla. macha allah pour l'instant daal affaire yi ngi gérer mais xam naa nag waale bu dugg moom affaire affaire affaire déborde waaw waaw loolu la yàlla dogal lool. salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu. moom kenn doon ko présenté ci mim réew mooy tonton Ousmane Seck. dañ doon la doon laaj tey noo gisee bés bi tey mu en tant que fête de la musique ministre de la culture euh, organisé ko ñu lay laaj tey noo ko gisee. xanaa kontaan rafetlu ko parce que bu ñu nee de la musique c'est pour tous les musiciens du donc bi euh, ñu ministère de la culture et de la communication organiser les bés bu mel nii dañ ciy kontaan vraiment marqué nañu jour bi joué nañu vraiment public bi ñëw na ñu namoon public bi aussi donc bi ñu retrouver ak suñu public dañu am benn fierté bu yaatu parce que pandémie bi téye nañu lu yàgg ñu namoon public public bi namuñu donc tey vraiment c'est un grand jour quoi vraiment waaw Ousmane ñu bëggoon la laaj euh, looy waaj daal looy waajal sénégalais yi ñu bëggoon xam looy waaj. bon maa ngi studio pour benn album donc balaa yàgg dinañ génne benn euh, single en même temps ñu ngi préparé cinquième anniversaire Ousmane Seck et le Ousband donc euh, yooyu yëpp xam naa da ngeen koy am en exclusivité parce que nag nga ma laaj quoi boo ma laajee nag ah, ma ñamal la ñaar yooyu en attendant. bonne fête à aussi di la di leen encourager vraiment di leen wax bon courage voilà. bonsoir tonton Tafa ñu ngi lay nuyu di la ziar. bonsoir Yaay Fall ñu ngi siyaare ba lépp tawfeex. Tafa sant yàlla euh, kii nag daanaka kenn dootu ko présenté mooy Tafa en tant que ménageur euh, Tafa dañ la doon laaj lan moo waraloon teewaay bi ak noo gisee fête de la musique bi. jóge ci frustration bu bari euh, suñu borom dimbali ñu ba corona arrière. acteurs culturels yi musique rek la ñoom artistes yi musique rek la ñoom tey bu nekkee fête de la musique et nasaraan yi di wax la culture elle est au développement c'est que l'esprit au corps képp kuy acteur culturel rek tey sa bés la donc ñun dañ fi teew en tant que producteur en tant que promoteur en tant que manager mais surtout en tant qu'artiste xam nga donc mbégte la lii ma gis nii nice na liñ ci war a yokk rek mooy dañuy bëgg mu bañ a yem Dakar na ministère de la culture góorgóorlu ba bu fête de la musique jotatee ñu teg quatorze scènes dans les quatorze régions du Sénégal c'est important parce que ñu nekk ci région yi ci lañ bokk foofu am na ay artistes am na ñuy dund aar am na ñuy bëggee aar dañu war a teg ay scènes fépp fépp c'est la fête de la musique. waaw mais kontaan rek xam nga ñun moom ñun ñun musiciens lii leen am dañ ko bañ ba ne ba ne fête de la musique donc lii suñu fête la à tous xam nga. du rek du rek pour musicien mais pour Sénégal yëpp ah pour pour pour mélomane yi pour xam nga waaw képp kuy bëggee musique rek vraiment kontaan nga ci ci fête de la musique quoi xam nga vraiment kontaan nañ bu baax xam nga initiative bi c' est c' est c' super vraiment xam nga. il faut ñu décentraliser ko il ñu décentraliser ko mu gën a yaatu xam nga état moom yaakaar naa lu mu lu mu mënul amul état moom ñoom mun nañ lépp mun nañ décentraliser affaire yi xam nga vraiment ba. mu gën a yaatu ba ñëpp jot ci vraiment loolu yaakaar naa du poser problème quoi vraiment waaw waaw. du hasard